Ibrahima Hamidou Dème ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu soxna Fatou Thiam. am nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi FM tey fàttali ni yow nekkoon nga magistrat tey yow yaa jiite mouvement politique bi di ensemble alors euh, sëñ bi dem jamono yële nag da nga fi siiwaloon ab scandale foncier ci Thiès euh, ngeen taxawaloon sax ab collectif boo xam ni euh, jubluwaay bi mooy fexe sàmm suuf nga nekk ca cees muy patrimoine foncier bi alors mbir moomu fan la toll. soxna Fatou Thiam maa ngi lay sant di la gërëm ci sa invitation. li nga wax li ci scandale foncier bi bàyyiwul benn bërëb. ci réew mi waaye ne dafa am Thiès euh, benn particularité man dégguma ko feneen parce que Thiès lu mu bokk ak réew bi mooy parfois da nga gis ay euh, espace vert wala ay réserve forestière mooy ay forêt classée yu ñu jël déclassé loolu moom ñun dañ ko bokk réew mi yëpp ñu gis tamit ay yenn zone non aedificandi fenn foo xamante ni ay xur la fi ndox doon jaar ñu jël jaay ko loolu yëpp bokk nañ ko réew mi waaye ne li nga xamante ni ñun Thiès fii rek laa ko gisagum mooy am na quelques mois mairie yi dañoo jël ay terrain xamante am na nañu ko moomoon ñu jël prétexte ni ñu tabaxuñ ko ñu def lu ñuy wax désaffectation mooy ñu nangu ko loolu nag biñ koy def teguñu ko ci yoon parce que ñoom li ñu prétexte mooy nit su toogee tabakul terrain am ci ñaari at commune mën na ko nangu waaye ne loolu méngoowul ak lu yoon jàpp yoon dafa jàpp ni nit ki bala ngaa jël yëfam da nga koy defal sommation mise en demeure mooy da nga koy yëgal parce que gis nga suuf soosu ñu nangu ci nit ñi parfois ay njëriñ lañ da ngay gis ku gaañu ñu ne ah pour lu gën a wóor daal pour denc mooy ñu jëndal doomi terrain teg fa yeneen ay fonctionnaire yu kër kër yi ba am lu leen yàlla suturaal ñu jënd terrain mais ñëpp xam nañu tabax yombul ci réew mi ñuy dajale pour jéem a di tabax am lu ñu tabaxee ñu ñëw nangu terrain yooyu li ñu wax nag mooy mbir mi genre euh, nangu la man sax nit ñi dañ may naan ni dama correct trop waaye càcc la rek mooy dañuy fekk lu nit moom ñu jël ko ci force teguñu ko ci yoon loolu moom càcc la léegi nag lu ci gën a doy waar mooy loolu su fekkoon commune rek dañ ko def dana jaaxal nit ñi mais xam nga administration dafa am président dafa am ku ko représenté représenté toute l'administration mooy gouverneur yeeg préfet yeeg sous préfet yi ñooñu dañoo am en charge lu ñuy wax contrôle de légalité ñuy xool ñooñu mënuñu dugg ci gestion commune mais dañuy xool tamit est-ce que commune yi lu ñuy def méngoo ak yoon mais ñooñu dafa mel ni dañoo ànd ak commune yi ci loolu service technique locaux yi ñooñu tamit ñu ànd ak ñoom mu nekk daal benn coalition ay nit ñu ànd ci ay euh, mbir yoo xamante ni dafa doy waar du ci intérêt population yi seen intérêt kese la parce que ñoom ñooy mujj toog jaay terrain yi partagé ko parce que du terrain yu ñu nangu ci ay nit pour jox ko ñeneen dañ koy nangu pour di ko jaay loolu nag euh, dafa doy waar moo tax firnde ci li ngeen di wax man damay wax nit ñi du ma waxantu parce que am na euh, su ma jógee su waxee waxee rek euh, nit ñi euh, war nañu xam ni kii du waxantu man musuma wax depuis ma duggee nag euh, soxna Fatou Thiam ci politique. Hmm. dama ne man ñaari mbir man ñoom laay téye ñoom ñoo may guider ci sama action politique mooy dëgg. ak intérêt réew mi gis nga dëgg boobu même parfois sax danaa wax dara nit ñi ne ma lii du ci intérêt sax opposition ma ne ko mais ci intérêt réew mi la dëgg daal moo féete ci kaw kaw lépp. ngeen fas yéene yóbbu mbir mi ci yoon ndax euh, saisir ngeen déjà euh, juridiction yi nga xam ne ñoo ci war a wax. léegi dañoo décider saisir yoon xam nga Thiès soo koy dugg. jóge Pout fi nekkoon route nationale avant euh, autoroute bi ñu koy defal ki nga xamante ni moom mooy route nationale soo xoolee sa ndeyjoor dafa kilomètres wala euh, deux kilomètres dafa bokkoon ci xar kanam Thiès dafa rafetaloon cees gis nga euh, loolu bande boobu bi ñu jógee ci jël terrain nit ñi jël espace vert yëpp ci bande boobu la ñu dal maanaam daal desatu si benn espace vert Thiès léegi nag loolu ñun dañoo ne ah lu ëpp tuuru ñun nag ñu décider saisir cour suprême lu tax ñu saisir cour suprême parce que nit ñee ngi commencé tabax te suñ leen bàyyee ñu tabax mën nañu dem ba ci biir xam nañu Sénégal rek ñu ne ah tabax pare duñ ko toj maintenant nag dañ ciy profité waxaale te ñëpp ñu ñu jaay suuf soosu muy ay espace vert muy ay kërub jàmbur nañu xamante alal jàmbur lañ leen jaay suñ ko xamee ñooñu ay receleur laa leen tuddee parce que dama ne yenn yi man du waxantu mais aw beneen moo bu gën a rafet bu ma mën a wax loolu te parfois dëgg da koy wax mu leer ci nit ñi mm. donc nit ñi den bëggul tamit ñu ngi leen di dànkaafu di leen naan bu ñu jënd bu ñu leen joxee espace vert wala jox leen foo xamante ni suñ ko jëndee tamit suba ñu ngi defar suñuy recours dañ koy saisir en référé référé moom mooy loo xamante ni décision bu gaaw la waaw ñu ngi defar suñuy papier euh, xam naa fii ak semaine prochaine ñu pare ñu saisir cour suprême pour mu atte atte bu gaaw ate boo xamante ni normalement warul jël plus d'une semaine pour Ceesuwaay ñu delloo leen loo xamante ni seen moomeel la parce que gis nga dafa am ci réew mi loo xamante ni lu nit mën a moom moom mooy nga jënd sa terrain mu nekk sa kër ak lu nit ñi bokk mooy yoon yeeg espace vert yeeg yooyu du ñu nangu benn yoon nag lu nit ñi bokk mu mënuñu def amul procédure bu ko mën a ñëw delloo mu nekk lu ñuy nekk ay commerce wala lu ñuy mën a transformer la en kër lu nit ñi bokk nañ ko bàyyee Thiessois yëpp ak même ñu nekkul Thiessois mën ci jouir d'accord mais est-ce que yow procédure bi ngeen di waaj dem am nga ci yaakaar ndax yow euh, li la tax a jugee ci magistrature mooy da nga ne justice bi moomul boppam bu dee justice boobu moomul boppam nag ndax bu ngeen demee yaakaar ngeen ni danañu àtte àtte boo xam ni jaar na yoon surtout yow. soxna Fatou Thiam gis nga foofu laaj bu am solo nga laaj. parce que ñun du ñuy démissionner magistrature ñëpp xam na ni dañoo ne yoon moomul boppam. te loolu sénégalais bu fi nekk mën na xool loolu. juger ko est-ce que am na ba tey wala amul. dafa am aussi leneen man ku ñëw ci man ne ma dañ maa tooñ. xam nga duma la ne demal xeex yi. wala demal réglal ko sa bopp. lu ma lay wax mooy demal saisir yoon. képp koo fi gis day ne yoon lay saisir. loolu nag moom mooy ñun dañuy continuer di garder confiance yoon parce que amuñu beneen alternative amuñu beneen possibilité. vigilante moom mooy dañ koy garder confiance mais nag xam nañ ni tamit ay gàllankoor mu ngi ci waaye ne dafa am loo xamante ni man ci koor bi ma nekkoon wóor na ma ni ñi ci jub ñoo ëpp ñi nekk safaan peut-être que am na ñiy def safaan rek ñoom la ñuy jox yenn poste yi pour ñuy defal lu neex gouvernement bi waaye dañoo xam ne lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg ñun dañoo jàpp ni yoon dana delluwaat ci fi mu nekkoon te loolu il faut que ñun ñu koy il faut ñu continuer di éprouver yoon d'accord yoon googu nag euh, menacé na ñu yóbbu la ci yow ndax ginnaaw bi nga génnee wax lii nga wax ni euh, maire yi ñett précisément ci Thiès daan nañuy annoncé benn plainte euh, ndax jot nga plainte plainte ba tey ji jotaguma plainte waaye ne xam nga ñun bi ñuy def politique première émission bi ñu def dafa am liñ ci doon wax mooy ñun dañoo dugg benn langue xam nga ñu bari lu leen teree def politique parce que dañuy ragal nit ñi parce que ñi fi doon def politique am na nu ñu mel ay groupe saaga ay groupe sos ay groupe menace la ñuy def ñun nag dañoo pare dañoo mesurer yëpp bala ñu ciy dugg ñun duñu wax lu ñaaw ñu saaga duñu sos waaye ne pare nañu aussi pour affronter ñi nga xamante ni leneen la ñuy def duñ leen fekk seen camp mm. wax dëgg yàlla parce que ñun loolu du suñu di ko tëj ku ñuy suivre politique ba tey xam na ñu ngi koy def ci dëgg def ko ci njëkk def ko ci teey léegi nag loolu lu ñu ci tontu rek mooy lépp lu ñuy wax dañoo am ay firnde te Thiès waaye rek li ñuy wax noonu yëpp nit ñi dafa am des éléments factuels ku ko weddi rek na ñëw xool Thiès est-ce que loolu am na wala amul ay téeméeri nit yu ñu nangu seen terrain est-ce que jëluñu ay espace vert jël ko di ko tabax di ko jaay est-ce que jëluñu bande bi ñuy wax nii di ko tabax loolu ku dugg Thiès wala dëkk Thiès da ko gis hmm. donc ñun duñu waxanku hmm. ñoom nañu répondre ci loolu am na wala amul hmm. ñoom nee nañu da ngay politique te itam xëy na sax sa bët yaa ngi ko teg ci mairie bu Thiès ñun acteur politique lañu am na loo xamante ni suñ ko defee day am connotation politique parce que acteur politique lañu. Mm. yàlla xam na ni gis nga combat bi ñun ñu ngi ci dëggu yàgg. bugguñu ci woon fës. parce que gis nga li ngay wax nii moom la ñu doon éviter ñu jàpp ni ñu dañ koy politiser parce que am na loo xamante ni ci intérêt population yi ci intérêt Ceesuwaay yi lañu dañoo bëgg a ànd ak population yi def ko te ñun amuñu ci benn objectif politique xam nga soxna si mm. ñun politique biñ ciy dugg ci ngëm lañ ko teg yàlla moom mooy joxe du nit ki mën na xëccu def lu ne def ay calculam yàlla moom lu muy décider def na ko ba pare sotti na. mais yow da bëgg a nekk candidat ci mairie Thiès. dañoo loolu weddiwuñu ko parce que ñun suñu candidature wax nañ ko depuis plus d'un an. parce que am na ñoo xamante ni ñoom musuñu xalaat danañ nekk maire. wala musul nekk seen pas-pas. Hmm. ñun dafay projet boo xam ne dañ ko ànd ak ay nit ay Thiès waa. ñu bëri ñu ne ñun dañoo bëgg. mu am vraiment beneen politique bu bees beneen doxalin bu bees ay projet yu bees un nouveau souffle pour Thiès ñu offrir Thiès waayu lu bees parce que Thiès ville boo xamante ni potentialité bi bëri nañu donc ba suñu rombee espace ñu ngi xoolaat ni waaw lii suñu taboon maire ñun lii de nañ fi def lii def fi lii nan la ñuy def ba aménager ko ñun loolu la ñu xalaat mais du ñu xalaat ni lii nan la ñuy def ba ndàgg ko pour am ci je pense que différence bi foofu la alors euh, mun ñu jàpp ne kon yow pare nga pour élection locale yi euh, nga soobu ci waaw ne gis nga élection locale amul élection bu ëpp solo parce que changement yi ñun dañ koy wax à la base la war a commencer changement yi ñu bëgg ci réew mi à la base lay commencer hmm. ci suuf lay jóge dem ci kaw te population yi seen bopp ñoom ñoo mën a impulser yenn changement yi man dama jàpp ni benn collectivité locale mënul réussir te impliqué wul population yi li ñuy wax gestion inclusive hmm. lépp lu ñuy def ñun dañoo bëgg ànd ak population yi def ko hmm. parce que su ñu ko defee ñun kese dama lay jox benn hmm. exemple rek ñëw setal nettoyer ville pour mu set loolu mais munoo ko def te àndaloog population yi man lu ma jàpp sax population seen bopp ñoom ñoo war a di def loolu ñoom la ñu war a confier mission yooyu ba pare nag confier leen mission de prévention bañ a tilimal éduquer xale yi éduquer population yi ci loolu moyen yoo jël mën nga indi poubelle àdduna bi yëpp pour ay camion yi jël euh, mbalit mais soo nettoyé tey balaa suba ñu tilimal waaw yaakaar naa ni mënul indi solution d'accord rapidement euh, solution ndax gis nga ko justement euh, ci mbirum suuf mi nga xam ne tey daanaka daj na gox yi Sénégal yëpp te dafa mel ni problème la bu xóot ba ëpp lool sax ni ñu ko yaakaaree waaw solution nag soxna si man ci fenn rek laa ko envisager xam nga solution moom mënuñu ko envisager ci nguur gi. parce que lii ñu fi nekk tey. xam nga problème bi depuis 2000 la. te ñi fi nekk tey xam nga <laughs> loolu benn parenthèse la dañu yaakaar ni rek 2012 la ñu ñëw <laughs> man dama yaakaar ni amul benn responsabilité politique bu ëpp responsabilité. ci gouvernance Ablaye Wade président Macky Sall nekk na fi directeur général nekk fi ministre de l' énergie et des nekk fi ministre de l' intérieur nekk fi premier ministre. Hmm. waaw. nekk fi président assemblée nationale suñu bëggee neen moom li mu fa nekk yëpp presque bokkul dama jàpp ni responsabilité am c'est même euh, avant 2012 muy continuer ba tey bradage terre yeeg yooyu yëpp jàpp naa ni damay gis ay ñoñam di wax ni waaw avant 2012 la yenn ay même moment boobu nekkoon na fi premier ministre moom moo doon contresigné décret président de la république waaw gis nga ñoom amuñu yaakaar ci ñoom parce que dama jàpp ni ñoom noonu la ñu yaakaaree noonu la ñu waree yoree réew mi. pas di ko jëriñ kon yow nga gis solution tey. waaw ñun lu ñu yaakaar mooy. incha allahu rabbi recours yi ñuy def parce que xam nga 2016 bi ñu fi defee référendum bi dañoo ne da ngeen am ay ay ak ak yelleef yu bees patrimoine suñu droit su suñu patrimoine foncier suñu droit à un environnement sain yooyu nag dañuy saisir yoon yaakaar naa ne su ko réglé problème Thiès yi mën na nekk exemple boo xamante ni fépp feneen ci réew mi mën nañ ko topp parce que problème bi dugg du problème Thiès rek problème du problème littoral kese mm. ci Sénégal yëpp la très rapidement waxtu bi moo ñu dab lool laaj bu mujj bi mooy nekk mbas mi tey la Sénégal matal ñeenti weer euh, yi nga xam ne mi ngi koy xeex ak euh, jàngoro ji di coronavirus tey booy xeex bi euh, lan ngay gis ci ma de gâchis gâchis bi nag dinañ ko gën a gis ci kanam mooy ni ñu jëlee en charge mbir mi mbas mi c'est pas adapté parce que gis nga début bi ñun ñëpp tiit nañu parce que gis nañ mbas mi ni mu def ravage bi mu def ci yeneen réew yi yi am doole yëpp ragaloon nañu mais bi ñu demee quelque temps dañoo xam ne mbas mi demeewul noonu parce que loolu mën na choquer nit ñi ñu ñuy naan demeewul noonu mais xam nga chaque jour suñu ñëw di la présenter ay cas yu bees di la wax suñ ko defoon ci sibiru ñu def ko ci cancer ñu def ko ci beneen feebar feebar yoo xamante ni li ngi rey lu ëpp mbas bi lu muy rey sénégalais yi dinañu gën a tiit mais dañoo nekk réew moo xamante ni suñu doole bëriwul suñu jëlee mille milliards yi ñu jël ñun jàpp nañu waroon nañu ci a gën adapté lutte bi ñu xool tamit ni du mbas mi kese moo fi nekk xam nga bi ñu toogee ñu confiné presque population Sénégal bi yëpp tey ñu ngi naan ni suñu euh, croissance bi nga xamante ni waroon na dem plus de six pour cent mën na dem sax ba nekk moins un pour cent loolu jàpp naa ni waroon nañu mën a éduquer nit ñi ci ay mesures barrières mais ne Sénégal quatre vingt dix pour cent sooy jël fukki nit juróom-ñeent ñëpp ñu ngi ci secteur informel bi hmm. mooy ñi nga dañuy liggéeyal seen bopp wala dañuy yeewu di wuti dépense euh, loolu baaxul ci économie bi parce que mënoon nañu ak ñoom si lever état d'urgence bi mais mais du ànd ça loolu waxoon nañ ko depuis avant donc lever état d'urgence bi dara loo xamante ni c'est tout à fait normal mënuñu continuer di mais état d'urgence bi bi li ko mujj doon dafa amatul benn njëriñ hmm. yaakaar naa ne nag hmm. war nañu espérer que Sénégal suba jàmm ñu am ñu fi nekk ñu am yéene ci réew mi am euh, beneen gisin beneen doxalin bu mën a indi des ruptures vertueuses pour hmm. que réew mi mën a changer de cap. jërëjëf Ibrahima Hamidou Dème ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte dalal la ci matinalu réew mi euh, fàttali ni nekkoon nga magistrat euh, tey yaa jiite mouvement politique bi di ensemble ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay sant di la gërëm soxna Fatou Diam.